salut les mélomanes de la musique africaine ak Youssou Ndour da ngeen koy pot ci Instagram YouTube Twitter Facebook maanaam daal internet bi yëpp daal na na na na na bu jot daf leen di may nag show boo xam ne ah gars yi ne leen dafa gàtt waaye mi ngi xool ndax da koy yokk wala du ko yokk waaye daal bu heure bu na ñëpp a toog seeni kër te bañ a yëngatu ak Youssou Ndour kon dafay neex lii kenn ma ko gis Youssou Ndour Il est dangereux.